araat suñu part te xam ne vision président de la République Macky Sall moom moo mën a yóbbu émergence bi ba mu romb sax parce que bëgg nañ dem ba dem ay 2050 ñu ne alliance pour la république ñoo yore pouvoir bi parce que vision Macky la ñuy góon di doxal xale yi juddu yëpp mu jee juddu am ay carte ba leen wax dañuy militer alliance pour la république ndax gëm-gëm lañ am kenn jàppalewu ci crédit euh, yi ñoom ñuy am dañuy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 loolu taxuñu jóg li ñu tax a jóg mooy aar suñu parti au niveau national dinañ def tournée bi dem si région 14 régions yi nekk Sénégal yëpp gën a taxawal parti bi gën ko dëggal comme ni ko président de la République bëggee loolu mooy initiative bi moo ñu tax a jóg ci njiital coordonnateur Bassirou Seye donc maa leen sant leen gërëm di jox Bassirou Seye. di jégalu ñi ci biti bëgg a dugg te mën ñoo dugg. waaye xam naa leen fi indi tamit moo am solo loolu jar na ko ñu ngi sant son excellence président Macky Sall ñu tax ñuy def lii biñ taxawalee lii tamit dem nañ ba ci moom seeti ko mu ñaanal ñu jox ñu ci ndigal daan ni fépp foo leen dem ci 45 départements yi ci tournée bi ngeen di waajal seeti leen leaders yi seeti ñi frustré ngeen dem ngeen waxtaan ak ñoom parce que àdduna waxtaan moo ko lal mën naa am ku ma mere te xamul li tax mu mere ma mais boo leen ba ci moom ngeen waxtaan ak moom wax ko samay mébét at li mu bëgg dina tax mu ñëwaat loolu moo waral tournée bi ñuy def ci 45 départements yi ak 14 régions yi incha allah dinañ ko tàmbali suba wër Sénégal gépp def ko aar suñ APR aar suñ président Macky Sall la li tax ñu koy aar tamit dafa neex a aar c'est le seul président au Sénégal depuis 1960 à nos jours 2008 mu génn ci PDS dem xeex ci ñetti at wala ñeenti at ñëw doon président de la république loolu mësta am ci àdduna bi mu doonee président en 2012 mu ñëw fekk fi 57 000 employés mu ñëw yokk ko ba 364 000 kon kooku gàcce ngalaama bërki démboo Njaay mu taxaw ci tele yëpp le 3 avril wax lu am solo daal ni à partir d'aujourd'hui année 2021 nañ ko def année ndaw ñi dinaa dégager 80 milliards francs CFA def ko ci ndaw ñi loolu nag bu ko waxee dañuy ay ndaw dañoo wax a am yaakaar gën a tëggalaat suñu bopp xam ni président kat ndaw ñi ñor nañ ko ndax ñu dajut fépp te du ñuy tamit moom lañuy aar ba tax ñu lépp parfaire na am na lu doxul mais am na loo xam ni tamit mu ngi ciy bay tànkam baneen tamit mu ni secteur privé àdduna mënut a dox sans le secteur privé chaque année doon na subventionné secteur privé bi 1 milliard mu ni à partir d'aujourd'hui na ko def année bu ne 15 milliards francs CFA kon kooku bu waxee loolu bëgg na ndaw ñi am xëy bëgg na ndaw ñi am taxawaay parce que jàpp na ni Sénégal li koy doxal mooy ndaw ñi ak jigéen ñi te ndaw ñi ñooy fer de lance àdduna kon ndaw ñi nañ takkuwaat gën a góor góorlu gën a rey suñ bopp te jàppale Macky sàll gunge ko ci vision ba 2035 wasalaam maa ngi jégalu ñëpp di sant ñëpp merci beaucoup